incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ ñu ngi lay delloo nuyoo bi yaa ngi waa ak mbooloo mi ngi fekk yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ bi jullee àjjuma ñëw fii ci sa kër tey ñu bëggoon seq wenn waxtaan woo xam ne day jëm ci réew mi rek sëñ bi ñu gis la fi at yi lay passé eh, bi ñu fi wootee wii ak noo bi nga defoon fi daanaka benn congrès ak tournée boo xam ne da woon ci loolu man nga noo li lan moo taxoon d'accord ci woon. waaw loolu moom ay tomb yoo xam ni dafa lënt te laaloon diine ji muy xeeti laïcité bi te noonu ñuy ay jullit gëm yàlla gëm yonent bi di àttewoo ci alxuraan ñu bëggoon ñoo dugal foo xam ne nag yàgg nañ koo bëgg ndax moo génne sëñ bi Sénégal ndax wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ba mu delsi njaboot gi mu fi bàyyi ñëpp di bañ loola waaye nag di maslaa bi ñëwee nag ba jëmm jamono jooju nag ñu indi doole am luñ ca doole loo xam ni day daganal ay ngóor jigéen nag yu niroog yooyu yooyu looloo taxoon nag bañ ma ko leeralee laa yëkkate woon sama kàddu di ca dox ba wër réew mi ne dem naa fa ba yàlla dogal na dëkk Sëñ Tuubaa yi moom ñëpp nañ leen ñëw Darou Moukhty ak Njaaréem ak fépp Kaolack fu ci yoon nee na ñoom ndax euh, dëggal kàddu suñu borom googu nga xam ne moom la yónni Seydina Muhammad te sëñ Tuubaa fàttali ñu ko diine rek di diine yàlla rekk di yàlla ñu gëm alxuraan gëm yonante bi li islam bañ ñu koy bañ donte nag mun noo def république islam itam war na noo mën a sàmm diine xanaa ak suñu ngor ak suñu taalibi lii dee taxoon ma ma ma waroon di def loolu. Mm-hmm. Euh, jërëjëf sëñ bi sëñ bi ñu gis fan yi réew mi ni mu toll nga xam ne daanaka toll nañ ci situation boo xam te ni yow lan nga gisee politiciens yi ak yenn kàddu ngay jëmale ci ñoom ci fi nu toll ci situation rawatina jëm ci njiitu réew mi ak luwaay yi nga xam ne réew mi daf ko tëgg ngir ñëpp war cee tënku. la ma waxoon bu njëkk rek laay waxaat jëngu ma constitution ba xam la ci nekk. waaye tomb yi ma ca gaaloon te ma xam ko neexu moon ba tey du ma neex waaye réew mi fi mu toll itam gëj na fi àgg duma politicien tamit ndax man duma militant duma opposant ànduma ak kenn ànduma ak Macky duma Macky duma Macky ilaaxir waaye bokk naa ci réew mi di citoyen kon lépp luy defar réew mi su ma ko xamee war naa caa wax lépp lu ko yàq su ma ko xamee war naa caa wax ndax maa wax asadu an laa ilaaha kon luy defar diine su ma xamee war naa caa wax lu ko yàq su ma xamee wax aslamtu nafsi itam di murid talib sëñ Tuubaa kon lu yàq tariixa bi su ma ko xamee war naa jox yor dante Sénégal di citoyen yi kon loolu taxul ma yëkkati sama kàddu kon référendum bi la nga jëkkoon wax yii rek la diine ji ak tariixa bi ak réew mi défendre sama kemt lay kàttan réew mi nag politiciens yi bu ñu rey ñoo ko bëgg a yàq bu caaxaan jeexee dëgg des ñoo bëgg a yàq réew mi yàq nañ nag lu ëpp ci njabootu réew mi ba ñu bari yàqu di wax lu ñu warta wax di def lu ñu warta def di dem fu ñu warta dem bi fi Abdou Diouf ak Senghor nepp ak ba ci njëlbeen ak Abdoulaye Wade population Sénégal ay xar lañ ba ma waaye nag léegi ay gaynde lañ gaynde kenn du ko tiital kenn du ko xopp génération bi deux mille deux mille deux mille jëm ba léegi xale yëpp yeewut am nañu fit te jàng nañ ba xam te yeewu nañ boo xam ne kenn mënta tax ñu nelaw am nañu fit dem ba kenn mënta tax ñu ragal moo tax ku jëflanteeg ñoom da ngaa war a jëflanteeg lu leer taalibi Sëñ Tuubaa bari ci lool ay jullit bari ci lool bu suñuy kilifa waxut itam am na raison bu leen tee wax ndax lekk ku yëkkati sa kàddu ñu yàq sa der te bañuy bañuy bañ bañ ba muy ñoom kese muy neex dañoon benn sëñ wax bu benn kilifa dina wax nañu ñu bàyyi ak suñu politique ku ci wax sax ñu ñu saagal wala ñu defal neen ba li ëpp ci kilifa yi ñimeetu wax ngir sagal seen bu sagal seen der te ñoom de lañ daan def yàlla lañ ko digal man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi wa in lam yastati fa bi xalfi sunu kilifa yu mag yi dañ daan seen kàddu te wax lu ñu war a wax waaye léegi nag ñii fi nekk. di ay politiciens ñoo joñ ay xale ñu leen di saaga ak troxal toroxal te koo bëgg mu bëgg ni nga bëggee teraanga da nga koy waaye koo bëgg bañ bañ la ni nga toroxa toroxla danga nga koy da nga koy toroxal mu dem nag ba bëgg a yee fitna te suñu borom nee na wa taqoo fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa yont bi wax ne al fitnatu naima laxana allahu man ay gaza kon ki ñu war a waxal mooy ki jiite réew mi ndax lépp ci loxoom la nekk gënul nit ñi ndey gënul nit ñi bàyyi ëpp leen xam-xam yàlla tànn ko def ko def ko def muy buur mu jiite ñëpp nangul ko ko kenn fëkkastalu ko mu tolloon ci ni wan day wàññi mandat yi def ko juróom-juróom ba muy waaj jeexal ñëpp attaque ko ndax yaa waxoon nangam nangam mu ne la waa nangam nangam ba dindiwu ko ñu bàyyi ko mu def juróom-ñaar. mu ni amaat beneen mandat muy juróom mu ne bu jeexalee muy bàyyi day bàyyi kon nag bu mu jëfandikoo doole bu mu jëfandikoo sañ-sañ ndax man mii moo tasew nag moom dañ may wàcce fee bu tasew nag sama kilifa dañ koy wàcce fële bu tasew nag ñeneen dañ dañ leen di wàcce fële bàyyi ko mu jàll bañ lay tàngal kafteeru kaf waxuñu la nga naan lépp bañ lay reyoo ndax itam waxuñu nga lekk lépp ndax xajul ci biir teraanga yi yaa moom kafe gi yaa moom kafteer bi ak teraanga yow lañ réer nag daa war a doy sëkk comme yor na réew mi fukki at ak ñaar te jàpp naa ne keneen dootu ko yar fukki at ak ñaar ndax ñaari juróom rek la wax muy fukk ko yar moom ko war naa doy loolee buñ taajeem ndox nag ñëpp war naan nga naan ñaari pot bëgg a dolli ñetteel nit ñi dañuy tey sa loxo lii moo indi coow li xaw ma nag àq lu waaye moom li mu war a def dañ ne bu ñaawoo dikkee na nga féete rafetal sa wàll te ñaawoo gi bëgg ñëw nag. te am na lool jaasi fa faju ko fital faju ko ngànnaay faju ko xale yi fi ñu toll nii dara mën leen a dëpp te lépp loo xam ne jaasi moo ko tëral wala fital moo ko tëral su fital ga tëddee loolu day jógaat kon moon waxtaan ak ñi ko seqal ba tënk ndax yonente bee gën ñëpp sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da koo wax ne suñ borom da ko da koo wax ne wa saawirum fil amri wa isaa xasam ta fa tawakkal allahi daa jëkk a wax san fa bima rahmatin min allaahi linta lahum wala kunta fazzan xalisal xalbi lan faddoo min hawlika ci yërmande yàlla moo tax nga mokk kilifa dafa war a nooy ba noppi dëgër leet ba noppi xat ñaar nag bu ñuy xëccoog ku jëkk a bàyyi rek gañe nga te moom mi ngi mbooloo kon moo war a bàyyi mbooloo mi tooñ ñu ko de seen àq lañuy laaj tam jël na àqam noppi kon nag li gën ci moom gën ci réew mooy mu dem cee rafetal fa imsaakun bi maxruufin aw tasirun bi ixsaan comme wax na fu ne waxati fu ne te nit nag du fas wu ñu tënk du mbaam mu ñu tënk ci kàddam lañ koy yow moo waxoon ne ba amee ñaari mandat bàyyi kon wërta yokk mandat mbaa bu ko yokk war na cee waxtaan ñu mu ko seqal bañ bañ déggoo ci ak moom waaye ñàkk ñàkk a def loolu nag moo tax ndaw ni gis bopp ñu ko seqal gis seen bopp ñu ànd ngir ngir ngir yàlla di xëccoo am na ko wax dëgg ñu ànd ngir àddina xëccoo am am na ko ci wax dëgg kon war nañoo xëccoo waaye xëccoo nag warut a àgg ci juyoo wute mënta ñàkk gisoon nañ ñi ñëpp kenn bokku ci sa bopp moo sol dañoo bu dee bu dee ci tubaab yi ñii dañoo weex ñii na ñii ñuul ñii xonq ñii ñoo bokk diine waaye wutewuñ dañoo juyoowuñ dañoo wute nii rek ak couleur wute yére ñun ñëpp ñoo bokk waaye ñoo bokk liñ bëgg est-ce que sunu gudd tax nañu xëccoo tax ñu ŋaayoo koo jooyal nag di ngeen daje mukk mukk fi mu daa àgg ci juyeg waa population ak ak juyeg waa réew ndaw ñii ñoom ñoo bëgg a soppi ndaw ñii ñoo dal ci moom te nguur nag su ko yàlla jël nii rekk lay deme ba muy jël nguur gi ñëpp ànd moom di ko apprécier waaye fi mu toll déggatul neex déggatul <laughs> lu ma dalal xelam hmm? kon nag balaa àgg ci gàcce balaa àgg ci genn gàcce gi man li ma jàpp <laughs> moo gën ci moom tey jàmmi réew mi mooy mu woo ñëpp waxtaan la mu yëkkati woon mu teg ko ci suuf suñu waxtaan yi ba déggoo ci toxal ñoom ñëpp ñu toxal suñ déggoo ci wéel ci ci date bi ñu wéel mu wéel ci date bi yàlla yaakaar ne mooy solution bi waaye man suma leneen